Thank you. asalaamaaleykum chers internautes Caaroy info TV dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xët yu njëkk yéenekaay yi li gën a fës ci xët yu njëkk yéenekaay yi dañ koy door rek L'As Quotidien waaw L'As yéenekaay di ñu xamal li bu njëkk daal lii di Dakar dafa révolté wu waaw couvre-feu bi moom Dakar ci benn yoon démb Vox Populi moom xëtam bu njëkk xëy ak ñun rek ak Dakar waaw Dakar rek na mu xatee démb bu dee yéenekaay bii di Walf Quotidien moom dafa xëy ak ñun si bu njëkk rek di ñu xamal ni daal bu dee président dafa signé rek ab décret waaw benn bi moom dañoo rek taal boobee décret présidentiel libération yéeni kaay xëy ñun ci xëtam bu njëkk di ñu xamante rek kii di président Macky Sall daal jël na lépp la nga xamante ni ay pouvoir la modification ba nga xamante ni dafay relative ak état d'urgence bu dee enquête yéeni kaay xëy ñun ci xëtam bu njëkk di ñu xamante ni daal lii di couvre-feu rek dañ kaa chayuté dëgg waaw dafa mel ni doxul de rek si Dakar ak Thiès la tribune yéeni kaay xëy ñun ci xëtam bu njëkk di ñu xamal rek corona ak émeutes yi daal doy na waar waaw ay quartier yu bëri ci Dakar daal dañoo génnoon rek ca guddi nga xam ne ñoom daal couvre feu boobee duñu ko dund. li quotidien si lolé sax la dikkat ak ñun posu mesure barrière yi ci président Macky Sall bëgg lolé nak dal jeune yi dal nangul ben yoon ci li quotidien bobé sax lañuy déssandi ak ay cadeau maître Elage Diouf mom bi ñuy xamal ni dal mesure yi ni ñu jël dafa rek injuste le soleil yene kay xey ak ñun ci xëtuma bu jëk ni ñu xamal ni rek ki di président Macky Sall nak faaw rek mu jël ay application yu rigoureuse waaw yu dëgër kecc réew bi quotidien ci covid 19 bobé la déssandé ak ñun di ñu xamal ni dal Sénégal gi dal ñu ngi jang rek dund ak li nga xamanteni modi deuxième vague covid bi l'évidence yéene kaay xëy ñun ci xëtam bu njëkk di ñu xamal ni nag kii di Antoine Job, nag mi ngi rek jàkkaarloog avenir am waaw ki jàkkaarloog politique am dafa séenee defar lépp moo di Macky Sall bu ñu sukkandikoo si Sud Quotidien waaw si xët bu njëkk Sud Quotidien ñu ngi xamal ni nag Macky Sall daal fas naa rek jouer kartam yépp critique yéene kaay dikkaat ak ñun ci Macky Sall waaw ñun di ñu xamal ci xëtama bu njëkk ni Macky Sall mi daal signé na rek ab chèque en blanc Dakar Times si loolee la dikkaat ak ñun ngir rek xeex li nga xamante ni moo di jëlee ci Covid 19 waaw président Macky Sall moom di fa xamle rek ci xët bu njëkk Dakar Times moom mii daala dina commandé rek li nga xamante moo di vaccin le quotidien dikk ñun ci xëtamu bu njëkk di xam ne rek am na ay jëf yi nga xamante daal dina defi rek explosé ab bomb ci wàllum covid 19 ndax kat yëf yi ni muy yokkee fa ca mel ni Jurbel Kaolack Matam ak yeneen ci ay foyer loolee doy na waar mel ni rek covid 19 moom dafa fësal boppam bu baax ci at yi ki fësal boppam ci at yi direct news wane boppam wàllum tàggat yaram dañu koy door rek yéenekaay bii di record waaw record yéenekaay di ñu xamal ni rek Diaw Baldé Keita mel na ni rek ku yeewuwaat daaneel ka nga xamante ni moo di équipe bu njëkkoon ba stade yéenekaay dikkaat ak ñun ci Diaw Baldé Keita waaw gaynde gi ñuy dee laaj rek ndax Diaw Baldé Keita di dafa nekkaat rek yeewuwaatub gaynde gi wala judduwaatub gaynde gi wàllum tàggat yaram ñu koy jeexale ka yéenikaay bii di sunu làmb sunu làmb dikk ak ñun si ñetti combat Balla Gaye yi gën a gaaw waaw Modou Lo 21 secondes Tyson 30 secondes Baboy 42 secondes li gën a fës ci xët yu njëkk yéenikaay yi dañu koy jeexale ka métier gardiennage waaw ñi nga xamante ni daal dañuy garder rek guddi loolee daal ak rek jafe-jafe yi si nekk kenn ci ñoom daal di ñu xamal ni rek du sa fàtte bés ba nga xamante ni daal dañu kaa sànni rek daanaka na mu juddoo woon ci mbedd mi si ba mu doon topp rek ab sàcc